2023 la démocratie les droits et les libertés ont été violemment atteintes très violemment jamais dans l'histoire du Sénégal les libertés n'ont été si menacées en 2023 2022 peut-être ensemble nous avons un gâchis financier extraordinaire le problème de la bonne gouvernance financière s'est posé ardument dans notre pays loolu mooy ñaari fait yi nga xam ne moo gën a remarquable ci suñu réew xaalis bi def nañ ko ci anam bu doy waar boo xam ne amul na kenn ku ci waxul réew mi yëpp sentir nañ liberté yi ak démocratie euh, dañ leen salfaañe ba nga xamee ni euh, Sénégal amatul fu ñu tëj nit kon souhait yi lan la pour 2024 souhait yi 2024 am na luñ ci amagum mooy président de la république bi nangu na yoon que amul droit présenté wu loolu aussi dama ci sant su nee na nee na ndax bàyyi ma àggali bàyyi sax amoon na fi bàyyi ma àggali xam nga invité mi invité nga muy cent cinquante fois fii seen wax mu waxal bëgg ma xam loo ne day def troisième mandat ma ne leen du ko def yàgg nga ko wax donc man bu ma bàyyi ma àgg may wax man li ma wax ñëpp dañ ma ci war a fekk si parce que dama jàpp ne du woon du woon pour mu présenter wu